Euh, Babacar mbay ñu gën koo xam ci Babacar Mbaye Muscade secrétaire général mouvement de soutien à Karim Wade Muscade et membre comité directeur parti démocratique sénégalais. waaw xaw nañu àgg di dégg nag ndax li di wax ne il y a temps de la politique et le temps du travail bàyyiwuma benn activité politique ndax tout le temps maa ngi dem ci réunion comité directeur ak réunion yi nga xamante ne yëg naa ko. mu fekk ma Thiès wala yeneen événement te wala manifestation yi am Dakar ma yëg ko maa ngi fay dem bu baax a baax mais dafa fekk presque ñaari at yëpp dama gën a concentré ci sama activité professionnelle ndax politique def ma muy métier j'ai mon entreprise maa ngi sama liggéey dinaa concentré wu mais terewul dinaay mën a yenn activité politique. Euh, waaw parce que man dama bokk ci nit ñi nga xamante ne dañuy ñaan yàlla nekk un homme d'état parce que taxaw ne Karim woo na ma su ma ko defee du sama cër ndax am na ci ñoo xamante ne ëpp bien vrai que am naa mérite mais jàpp naa ne tey am nañu mérite Karim woo leen est-ce que su ma ko waxee une frustration je préfère m'en taire nopp ci parce que du loo wax ak kilifa nga génn ko di ko wax si maa ngi condamné ñi nga xam ne ñëpp taxaw nañ di glorifier ne Karim woo na leen te woowu leen même bu la woowee est-ce que moom bëggoon na nga wax moom xam na bëgg na nga wax ni moom woo na la donc nit ki bu fekkee dëgg ba nekk un homme d'état te ñu dañu aspirer ëllëg yor pouvoir bi kon am na seen comportement fi lañ ko war a mën a commencer yor que nga taxaw naan Karim woo na wala naa mën naa mais ñu ngi koy dégg ci jàmm woo nañoo woo ñëw dañ koy garder suñu bopp parce que mën nañ koo wax mu indi ay frustration mais ñun fi ñu jëm xam nañ ko bu baax a baax. ëllëg bi ni ma ko gisee ëllëg bu am solo la ndax jàpp naa ni ñun 2006 bi ñuy créé Mouskade pour soutenir ko tey masse de popularité bi Karim am amu ko woon ko ñun bu nu jëlee produit bu ñuy wax Karim Meïssa Wade jaay ko Sénégalais ba tey képp koo xamante ne sénégalais nga. nga am fulla am fayda esprit de justice et de paix xam ne kii buñ ko jàppale jox réew mi mu yor ko kon tey loolu ndam la ci man te gëm-gëm boobu ñu amoon ba tey ci la ñu continuer di ko am xam ne Karim Meïssa buñ ko dénkee réew mi incha allah rabbi am nañ yaakaar réew mi développé donc kon ëllëgam dafa leer nàññ ndokk bi nga xamante ne tey CREI yi taxaw na wax ni Karim Meïssa Wade mii condamné nañ ko 6 ans amende ko tant de milliards waaye il garde toujours ses droits civiques et politiques kon kooku yoonam dafa leer que ni moom comme le PDS te not notre parti l'a déjà investi kon yoonam dafa leer ba pare li ñuy xaar mooy bisub déposer candidature ñu jël ay kayit yi nga xamante ne moom la parti bi am ak ay kayitam ñu boole ñu déposé ko au gref du conseil constitutionnel bu ko defee la droit sera dii que ni Karim Meïssa Wade sa candidature sera acceptée et validée loolu bettuñu parce que ku xam France te sunu référence la xam ni France yi boppam dëkk bu am état de droit la parce que développé nañ ci justice ndax bu ñu demee tey bay def ay tribunal de grande instance kon xam nañ ni France suñuy nawla lanu te dañu am coopération bilatérale entre la France et le Sénégal mu nekk lu yàgg te ñooñu ñu coloniser donc ñoom bi ñu demee ba saytu plainte bi nga xamante ne état du Sénégal déposé na ko conte Karim Meïssa ak Bibo Bourgi dafa xool plainte bi saytu ko ne ñoom ko ci seen i loi li ñuy toppee Karim waa Sénégal ñoom bokkul ci seen i topp kon gisuñu enrichissement illicite gisuñu li nga xamante ne mooy euh, détournement de deniers gisuñu li nga xam maanaam mooy corruption moo la ñu député état du Sénégal kon lajjiwaat nañu foofu mu nekk ndam boo xam ne Karim am na ko ci ndam yi mu amoon ci Sénégal ak bitim réew lu ci mel ni CEDEAO lu ci mel ni groupe consultatif de euh, des Nations Unies lu ci mel ni sëriñ si ak toutes les personnes épris de justice de paix ak société civile bi ak société de droit de l'homme yi fi nekk kon jàpp naa ne ndam boobu bettul woon ñun ñi nga xam ne ñooy soutenir de Karim bettul woon suñu parti bi te sunu avocat Karim bi liggéey ci liggéey bu ama ama am solo te jàpp naa ni bu ñu nee dañoo bëgg a dépouiller Karim Meïssa Wade de ses biens à l'étranger immatriculés au nom de l'État du Sénégal mais jaruñuy sori Karim Meïssa Wade ñëpp xam nañ ni dafa am yaay joo xamante ne tubaab la te ñu nangu ko xam ne c'est un national war na mën a am kër Paris mais ki nga xam ne Sénégal gi nga juddoo muy Macky Sall avant 2000 amuloo dara du luyee tey nga dem ba Houston am fa appartement kon jàpp naa bu ñuy rapatrier moom la ñu war a njëkk a rapatrier appartement am ak immeuble ak immeuble ba mu fa am Houston indi ko biir Sénégal dugal ci état du Sénégal parce que liggéey lu ko ko may bu dee enrichissement illicite moom lañu ñu war a njëkk a traduire devant les justices internationales et les justices nationales yi nekk fii beneen bi mooy rakkam la même chose kon jàpp naa ne bu dee dafa am lu ñuy seet am na lu ñu duut baaraam fii ndax dafa newoon CREI yi pour parti démocratique Sénégal la waaye nag pour waa APR la ak waa benn Bokk Yaakaar kon am na lu mu lijjanti encore une fois avec la victoire de Karim Meïssa Wade le ministre de la justice Sidiki Kaba doit démissionner

ki nga xam ne sax dañ ne day réclame ne parti démocratique Sénégal la bokk ñëw réunion ci parti bi la bokk duñ ko war a jox cër te jàpp naa ne li nga xam moo fi am ci fédération urbaine bi ñu taxawal ñu ci baree bare bare am na seen i réserve te it ñëpp laa jox dëgg ndax ñi nga xam ñoo nekk camp d'en face ak beneen camp bi yëpp waa parti démocratique Sénégal ay militants lañu mais parti bi ci boppam moo war a jóg taxaw mu trancher le débat def benn tribunal arbitral pour parti bi soit bu ñu def au niveau def exception au niveau local ay Thiès ñuy def ay élection de représentativité ñu xam kii ak kii bu dee notre frère Mamadou mi Massa il a du mérite dans le parti parce que depuis bi parti bi daanoo ba léegi ak ñi nga xam ne sax même ñu ngi ko def te feeñuñu ñu ngi jàpp ci parti bi franche bi ànd ak ñoom dene ba ak ñi nga xam ñooy euh, euh, comment dirais-je euh, mon frère Pape Moussa Diop ak ñoom Amène Mbaye ñooñu tamit ci parti bi lañ bokk kon man mënu leen a génn ci parti bi mënu ma génn ñu Massaly ci parti bi waaye quoi qu'on puisse dire Massaly il a du mérite ndax bi ñu demee ci élection locale yi gis nañu moyens yi mu génnee pour le parti te ñu bëri ci lañ bénéficié woo nekk ci ay conseillers soit municipaux wala départementaux donc kon jàpp naa ne réeroo amul ñàkk waxtaan mu war a am te bu fekkente dañoo def ay élection de représentativité ñu jaay ay carte de membre bu boobaa ku ñu ne diw moo jiite parti bi ayca ñëpp topp ci ginnaaw mais du ma génne kenn ci parti bi du ma xarab kenn ci parti bi man ku ma woo dinaa ñëw ñu def réunion ñu toog def ay plantation ku ma woo tamit je suis membre du parti démocratique sénégalais te Thiès kenn mënu maa génne ci parti bi li ma ci man ak su ne maa ngi koy def muy sama xel sama xalaat ak sama doole su ma amee temps ma yëg dinaa ñëw su ma yëgul tamit loo yëgul mënuloo ñëw mais li may def mooy maa ngi invité un climat social entre les membres du Parti démocratique sénégalais ici à Thiès ñoo xam ne ñoo bokk ndey bokk baay du ñu ay noon sunu noon kenn la muy Macky Sall ak waa Benno Bokk Yaakaar suñu toogee dinañu waxtaan ou bien ñu ne benn jury d'honneur boo xamante ne ay sages ñoo ko jiite ñu def indi waxtaan mu nekk benn waxtaan boo xamante ne comme niñ ko defee woon ci élection locale yi ba teg liste boo xam ne amul benn problème ci commune ouest donc parti bi am na ay coordination ñu ngi def lu ñu mën ñu ngi réunir tout le temps jeunes yi ñu ngi réunir adultes ñu ngi réunir femmes yi ñu ngi réunir cadres ñu ngi réunir anciens ñu ngi réunir kon parti mu ngi dox à Thiès mu ngi am animation mais bien vrai que moyen moo amul pour ñu mën a lu ñu bëgg a def donc tey coow am na kenn werantuwu ko mais jàpp naa ne coow loolu ngelaw lu jaar te incha allah rabi le moment venu parti bi dina toog mu tranché bu boobaa ku nekk xam fi nga féete. sama gis-gis ci tooluwaay réew mi te yàlla laa jël témoin su ma nee réew mi dox na damay wax lu ma neex mais réew mi doxut réew moo xamante ne li gën a élémentaire li gën a élémentaire mooy la restauration des libertés fondamentales et des droits humains ñu ngi koy bafoué réew moo xamante ne say mbokk rek ngay jël di leen fal def ko benn clan ethnique ci nomination yi toujours ci commune ci li nga xam mooy conseil des ministres yi ci direction yi ci ministère yi ci agence yi ci inspection yi ci préfet yi ci gouverneur yi vraiment il faut que ça arrête loolu dafa nekk loo xamante ne dafa nekk loo xamante ne baaxul ci am réew te ëllëg ci biir mën na indi frustration instant bi ni ñu ngi wax naan réew mi ubbi tey jàng tey te mën gëmuma ko ubbi tey lajj tey laa gëm man parce que jaaruñu ci yoonu waxtaan pour réew mi mën a dox jëm réew moo xamante nit ñi bu ñuy naan ndox mi ñuy naan sax du set du sell demal Wakaam demal Grand Yoff demal Parcelles demal fu ne ci réew ba Thiès gi ndox mi ñu naan du ndox mu baax la réew moo xam courant bi mu ngi di xuy di xamaj réew boo xamante tey jii ni sécurité amu fi réew boo xamante tey jii justice bi ñu ngi koy foowee réew boo xamante tey jii da ngay ñëw jàpp ku ma am ndey ku ma amul ndey ku la nee nga tëj li ma doon wax sànq tey bu ñu amee ku ñu war a jàpp koo xam ne turam dafa feeñ fës ci ay entreprise yoo xamante ay entreprise fictive la muy Aliou Sall ak Petro Tim te man toujours damay wax ne le Tim boobu est-ce que du le diminutif de Timbo Petro Tim timboo ñu def ko diminutif de timboo ñu jël ko daakande France Timis il faut gars yi xaar foofu tamit donc loo mu nekk flagrant délit ñu porté ko plainte diñ ko porté plainte ay officiers d'état ñoo xam ay fonctionnaires def ay enquêtes ñu mën leen ñu raje leen ñu dàq leen menacé leen dama ne ban Sénégal lañ nekk lii est-ce que du tax du tiital suñuy fonctionnaires ëllëg ci biir bu leen Macky Sall bëggoon jël falente ay poste de ndax du ñu bañ. ëllëg ñu traduire devant les just devant les juridictions internationales ou bien les juridictions nationales moo tax ma ne réew mi demut réew mi doxut réew mi fépp ay metti te yaakaar gi ñu amoon dafa tas ndax Macky dafa dem bu tuddee bopp APR yaakaar ñëpp yaakaar Macky Sall bu ñëwee day gën di Abdoulaye Wade defoon ci infrastructure ci lu baax mais dafa ñëw def lu gën a loo xamante ji Abdoulaye Wade defu ko ci entretien infrastructure ak mal gouvernance boo xamante ne amul une gestion vertueuse et vraiment le pays va mal vraiment xàmmeetuma sama dëkk par rapport fi mu tolloon ci wàllu développement ci wàllu infrastructure ci wàllu PIB ci wàllu lépp loo xamante ne ay ay ay création d'emploi la instant bi ni culture bi yàqu na touristes yi ñëwatuñ fi gouvernement boo xam ne une mauvaise communication vraiment mënuma qualifier Sénégal fi mu toll mais vraiment tey su ma doon wax tey Sénégal danoo yaralal président vraiment amuñu kilifa amuñu président Sénégal ab dëkk la dafay dox président ñi fi nekkoon ci société civile doon waxal askan wi kenn dëggatul leen et je vais les citer Abdou Latif Coulibaly Penda Mbow Abdou Aziz Diop Mohamed Thiam Abdou Abou Abel Thiam et kenn déggatul leen ñoo fi doon taxaw di xeexal askan wi di taal di di di di yëngal société civile bi ak population mais tey ba ñu saxee màccee sukkar Macky kenn déggatul leen où sont les personnes épris de justice et de paix où est la société civile Ablaye Wade jox na leen dëgg jox nañ ko dëgg parce que da wax ne c'est une société civile encagoulée tey gis nga tey ala ñuy war a wax dëgg li ci ëpp ci presse bi Macky Sall jël na leen jox leen ay postes de responsabilité dëgg amatul Sénégal même boo defee élément élément bu arrangé wul état bi duñ ko jàllale kon liberté de presse amatul liberté d'expression amatul démocratie amatu fi su ma doon yuux dama yuux ne wuy wallooy yàlla ñu suñu réew mi te nga tànnal ñu ku baax te am nañ yaakaar ci ki nga xam bu ñu ko tànnee mu yore muy Karim Meïssa Wade nga dénk ko réew Sénégal mën a am jàmm yàlla musal ñu ci li nga xam mooy musiba terrorisme suñu kilifa diine yi fi nekk ñu jox leen cër jox leen respect xam ne ay régulateur ay régulateurs sociaux lañ ndax lu bëri ci senegal tey ñoo ko xam ils ont presque toutes les informations ndax chaque jour ñu ngi déglu seen i taalibe ci seen i problème yi ñu am nañu dimbali ñi nga xamante ne ñoo nekk ci prison yi ñu àtte leen ñu génn ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi ñu dimbali la ñu am lu ñu fajoo pour mën a ñibbi seeni kër maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp je